aouzu billahi min asheytaani rajimi bisimilahi rahmaani rahimi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fooy mën a nekk ñoo leen di siyaar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen rawatina yéen jàmm fii ci Daaru Salaam si faaw tey nag dañuy waxtaan ak yéen ci jàngoro bu ñuy wax hémorroïde hémorroïde nag. jàngoro ju loo jàngoro la joo xamante ne nii lu naqaree faj la hémorroïde lu mën a yàgg ak doomu aadama la hémorroïde jàngoro la boo xam tamit das koy donn am na ci boo xam da nga koy donn ci sa yaay wala ci sa baay wala ci sa maam hémorroïde am na ci boo xamante ni tamit toogaay bu yàgg da koy jox nit hémorroïde tamit ñaar la hémorroïde interne mooy bu ne ci biir ak hémorroïde externe bii génn ci biti lu yomb faj nag mooy hémorroïde hémorroïde nag mën naa jàpp nit ki di tàng aw yaramam di tàng aw yaramam lool sax hémorroïde mën naa jàpp nit ki mu mel ni dafa am liquide bu nekk ci biir yaramam di dox hémorroïde mën naa jàpp nit ki ba téye ay tànkam tànk yi di crampe suufu tànk yi di tàng ku ko amee bu yow nga dem faju hémorroïde hémorroïde dana jàpp nit ki tamit ba ay loxoom di crampe hémorroïde dana jàpp nit ki tamit mu dëkkee seere bu bari du dem toilette hémorroïde dana jàpp nit ki tamit biiram di ballonnement di jooy gur gur gur gur gur di yuux dana jàpp nit tamit ba fu mu toog day ngalawal waaw nga xam du mën a téye njàpp lu bari hémorroïde dana jàpp nit ki nag ba nga xamante digg ginnaawam gi day metti jàpp ndigg li yéeg ci ginnaaw gi bu yéegee ci ginnaaw gi day continuer dem ci loos bi mel ni dafa jàpp loos wi mel ni lu colandeer hémorroïde day def noonu nit hémorroïde dana jàpp nit ki bàyyi noppam dëkk di riir mu yaakaar ne tension moo yéeg te yéegul hémorroïde da ko dana jàpp nit ki ba mu teg ko métti bopp mu dëkkee métti bopp hémorroïde dana jàpp nit ki ba muy miir di miir hémorroïde dana jàpp nit ki bàyyi bëtam di lëndam hémorroïde daal day yàq nit carrément yooyu yëpp kum dal bu yow nga dem faju imurit imurit nag dana jàpp nit kii te du ko xam mu jàpp ne seytaane ko jàpp wala mu jàpp ne ngelawul seytaane moo ko dugg waaye bu fajee imurit mën naa tane ñu bari ñu ngi dem ci sëriñ naan ngelawul seytaane ma jàpp ñu naa la ngelawul seytaane la sol imurit dong la jàpp lii ma wax nii déglu ko baax bu nekkee ci yow dong la jàpp jërul ngay faju seytaane demal nga faj imurit dafay niroo ngelawul seytaane mën naa jàpp nit ki xelam sax du dal te fit bi day dem xol bi di tëb di lu bari bi di baatare mën naa jàpp nit ki ba du mën a nelaw guddi wala muy xalaat xalaat yu metti mën naa jàpp nit ki sax ba yombal xëy am kese lay xalaat maanaam dund moom day jàpp ne du ñàkk xalaat dee fu mu toll. hémorroïde jàpp nit ki ba guddee bu tëddee day gént gént yu ñaaw wala du mën a nelaw bu fajaree rek lay mën a nelaw hémorroïde day def yooyu yëpp bu ko defee nga ne ngelawul seytaane ba jàpp wala seytaane ba jàpp fekk booba hémorroïde kese moo la jàpp. hémorroïde nag ku ko amee da ngay moytandiku café gu bari baaxu ci hémorroïde ku ko mu am da ngay moytandiku gerte gerte gu ñur baaxu ci hémorroïde ku ko amee da ngay moytandiku yàpp bu bari baaxu ci hémorroïde ku ko amee da ngay moytandiku diwlin gu bari baaxu ci lépp loo xam laal na jàll dafa bari protéine hémorroïde ku ko amee dangay ngay moytandiku yooyu yooyu baaxu ci hémorroïde léegi nag xam nga yi koy yi yi muy bañ café gerte gu ñorut soow piir yi bëgg ko bëggut soow piir bëggul café bëggul yàpp bu bari bëggul lu am gerees gu bari kon na nga moytandi ko loolu ki amee émorite boo moytandi ko loolu nag nga am garab yu baax suñu borom mën a jël sutura nga tane bu baax na te feebaral ba xam bu ko toppee mën naa wér waaye nag feebaram aj fajam nag du ci ñaari fan ñetti fan bari na ko am émorite da ngay dégg mu ne naan naa garab bu ne dem naa fu ne waaye mënta wér am ñoo nag dañoo wax ne émorite du wér waaye nag fa muy wére mooy sori waaye mën naa wér la ci nag mooy nga moytandiku yooyu ñu la wax lekk yooyu imburu nag lii baax na ci boo amee reenu salaan ak reenu caxat nga boole ko boo ci amee bu ne benn takk nga toog ko ci deux litres ndox ba mu ñor xomm nga xent bam set nga koy naan bu dee mag la nga koy naan kaas ndékkikaay ndékki añ reer ñetti waxtu yi bu dee gone la mën nga ko jox kaasu ataaya ndekki añ reer bu dee hémorroïde la da dem ba wàññeeku bu baree bëri ci hémorroïde waaye li ci gën a mooy nga moytu xam ni ngay lekke xam ni ngay dunde loolu baax na ci hémorroïde loolu reenu salaan ak reenu caxat nga boole ko togg ko ba mu ñor ci 2 litres ndox nga xent comme set nga koy naan genn wàllu kaas bu jeexee nga defaat bu jeexee nga defaat nga def ko muy sa traitement mën nga dem 3 mois nag bu dee génn la nga xam ne day génn ci suuf dangay dem nga wut reeni kii xobi salaan yi ngay wut boo wutee xobi salaan danga koy def ci siwo man nga am siwo diili yi wala siwo yi def mayonnaise bu jeexee nga wut ci benn wala siwo boo mën a toog daal bu dee émeri bi génn la boobu nag da nga jël xobi salaan yi nga def ko ci biir siwo bi boo ko defee ci biir siwo bi nag ba pare dangay tàngal ndox sotti ci tëj boo demee ba ñibbi ci ba sa yaram ñibbi ko nga toog ci nag guddi nga koy def nag ak boo xëyee bu neexee bala nga génn nga toog ci nag bu ko defee kooku day seeyal imru bi nekk ci bi génn ci suuf lu ci baax a baax la moom it kon yéen ñi am imru yoon waa ngoogu kon képp ku ci jël loolu ñu wax nag yàlla gis njariñ imru daal da ngay moytu baax li ngay lekk xam ngay dunde moo ci gën am solo bu ko defee bu amee terrain garab yu baax rek da ngay wér incha allah bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu